salaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte ci dalal gi ngeen nu dalal ngir eh, bisu Sëñ Abdou bu tedd bi donte ci gone yi nekkoon ci kippaaram lañ ngeen bëgg dara luñ mun a waxtaane ci Sëñ Abdou loo xamante ni bii dafay dolli nit ñi seen ak fàttaliku ci Sëñ Abdou man nag maa ngi tudd Abdou Lahad Diop euh, bokkoon ci gone yi nga xam ne nii nekkoon nañ ci sëñ bi ci mujj gi euh, ñu joxoon ma sëñ Moustapha Sylla muy ki gënoon a sës ci moom ci ñi nga xamante ni bii ñooy bëkk néegi yi ci niñ ko mën a waxee ñu boole maak moom muy sama jëwriñ euh, sëñ bi nag ci mujj gi. daanaka tàggu li benn yoon muy fii ci Touba ak Touba Belel ñun nag ay ndaw lañu rek yoo xam ne daanaka yónnee ñu ñuy dem di woote ji ak ci yenn yónneenti yeneen yi moo ëppoon ci sunuy jataay ak sëñ bi du tee nag jëmbut nii nga xamante ni bii sëñ bi du secret lu ci ëpp daf ko daan wax publiquement nit ñëpp di ci jariñu xanaa aw déggin rek ak fàttalikonte lay doon euh, loolu kon yaakaar naa mooy doon waxtaan wi. nit ki waxi démbam ak jëfi tayam boo ko boolee mënoo leen a ràññale di benn nit nit a ngooga lu nekk nale di ñëw moo jara woon nit naa ko séenal ma nga nale waaye mi ngi yi moom desu ko wax mukk ko ami bët te ku amuti bëti jërta wax ndax du gis euh, qualité yi sëñ Abdou dafay mel ni bu fekkoon ay baat lu ñuy fàttaliku boo ci tàmbalee benn ñi ci mbedd mi buñ ko déggee mën la nañ la ko eggaleel waaye ci li ma la wax ni la moom bokkoon na ci li doonoon suñu ab liggéey mooy lu ci ëpp yónneen yi demal wool ma diw demal defi nàngam ci lañuy wax liñ gën a seetlu mooy digganteem ak ñi nga xamante ni bii ñoom la bokkal Serigne Touba ci wàllu googu da ciy am ñooñ ci mag ñi day jël ca seen ak njaboot ñoo xamante ni bii ñooy doon teewaayu seen waajur ci biir kër gi nga xam ni boo fi baree ay tànk te xamul leen dangay ngay defe ni ci njaboot ak sëñ Abdoul Ahad lañ koo xamante ni bii ay doomi deretam lañu tollu na ay jamono sama ëpp ci yónneen nii may dox rawatina ci weeru koor mooy bu ma bu bu bu ñu xasee dem ba takkusaan bu jullee ba noppi dala naan demal woote ji ci ñoo xamante ni bii dañ ne woon seew am ndigal ñun ñu ni mu ni leen dee leen ndogoo si fii ci kër gi nga xam ne bu ma jógee ci sëtam bu ñu wax sëñ Abdou Lahad doomi sëñ Moussa Basirou fa laay njëkki dem ni ko sëñ bay woote bàyyi ko mu waaj foofu laay tegee dem ci sëriñ Basirou moor dinaa fekk mu solu ba dima xaar day doxe këram ñu ànd bu ma ubbee ba mu dugg damay jàll wooyi sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadre bu ma fa jógee wooyi Baye Cheikh Sëy bu mu fa jógee woy sëñ laat jaxate moom sëñ seex jaxate ñeneen ñi woy ñeneen ci waa kër sëñ saaliw lu mel ni sëñ Moussa am sëñ saaliw waxtu jot fi lay ndogoo si moom sax duñ ko woy ndax loolu am na ndigalam loo xam ni itam xaarul kenn du ko woy sëñ seex colle naka noonu ak ñeneen buñ ñëwee ci mbokk googu ak njureel géeg responsabilité bi mu jël ci ñoom wane ne ak njabootam lañ bu ñuy ndogu moom ak ñoom ñooy bokk nekk ci même euh, véranda bu sëñ Talla Seck bi nga xam ne foofu la doon togg ak ñoom kon ci digganteem ak mbokk yi dafay mel ni ñun liñ ci seetlu dafa jël njaboot gépp def ko muy njabootam te it lu yendu ci kër gi dafay mel ni kenn ku nekk fa nga jógee dina fanaan ci yow lu fanaan ci kër gi bu xëyee dina egg ci ñoom maa ngi fàttaliku bés mu mu ni ma naa ko woyali sëñ Moustapha moom sëñ Abdoul Khadr digg bëccëg waxtu woo xam ni daanaka waxtu fatu la ma dem ba ca këram gële ñu daan wax sanc ya ñu ne moom mi ngi kër sañ Abdou Khadir bi ma ñëwee fekk naa sëñ Abdou Khadir dugg ci biir waaye bi ma yëgloo ñu wax ko ko lañ ma ne naa egsi bi ma ñëwee fekk sëñ Abdou Khadir moom ca loxoom ñu tedd ya mooy xelli ataaye bi mu xamee ne sëñ Moustapha lay woosi man ak sëñ Moustapha la njëkk xellil jox nuñ biñ naanee ba noppi tàllal suñu loxo mu ñaanal ñu waxul ak sëñ Moustapha mii doomam jëm si sëñ Abdou Lahad man mi fa jógee dane ma boo demee nanga ma nuyul sëñ Abdou te santal ma ko loolu la ma sëñ Abdou Khadre wax biñ ñëwee ci kër gi damaa ànd ak sëñ Moustapha dugg bi mu nuyu ak sëñ ba toog man ne ko ah sëñ Moustapha de damaa dem fekk mu nekk kër sëñ Abdou Khadre ba falaa ko fekk sëñ Abdou nee na mi ngi lay nuyu mi ngi lay sant sëñ Abdou Lahad dane ma mbaa ma ne ko ma ngay sant Mbàkke nga xam ni euh, am na mbégte moo xam ne nii laajut sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadr sëñ Abdou sëñ Abdou laajut yóbbantewul sëñ Moustapha ci sëñ Abdou Lahad ndax jóge ga ma fa jóge cër boobu euh, delloo guñ ko delloo sëñ Abdou Lahad ak bëggante googu amoon seen diggante waaye li nga ciy seetlu rek mooy kon amul heure boo xamante ni bi daawul woo seen njaboot gi ak ñi nga xam ne ñu leen teewaleen ci ci kër gi qualité yooyu ngay wax bokk na ci Euh, diggante mag doomi seex yi ak ñi nga xamante ni bii ñooy waa kër gi waa kër gi nag ci ni ma ko waxe mën a waxe ci li ma ci jublu bokk mooy ñooñu ma la wax ni la kenn ku nekk jël nga sa njaboot teg fi rawatina ci seex si ak yeneen sëriñ si waaye ñoo ñooñu am na bis mel na mag di nettali dafa am ku doon boole sëñ bi ak ñenn ci xale yi mu ne ko ay waa yi bàyyi leen sama xale yi xamu leen ni ñii dey maay seen ndey di seen baay kon qualité boobu feeñ na ci nii euh, jàpp na ni fépp fu fi nekk la war ci moom moom la war responsabilité bi itam ci moom la aju ba loolu tam feeñoon na ci moom lii ñu toll tam muy lu mel ni màggal képp koo xamante ne bi amoon nga sa bis bokk ci yoon wi walla ngay kóllëre jàpp na ni la ca war lépp moom la war ba tax na waxtu bu fa yónnee ñëpp dinañ xam ni yóbbante wala yónneeb sëñ Abdou Lahad Mbacké ñëw na ci diggante ma gan ñi ñi fi daan ñëw sëñ bi dafa nekkoon ku organisé koo xamante ni bii kenn ku nekk ak lam lay def defloo ak la sa yoon nekk ak la sa yoon nekkut teewul nag dara mën naa xew nga gis ca xaj na xam ca loo ca war a mun a nettali waaye ci wet googu gouvernement bi nga njëkk a tudd dafa mel ni euh, bu dul lu jógee ci kilifa réew mi itam kenn ku nekk service ba nga nekk day mel ni mënoo ñàkk mënoo dem semaine wala lu ko ëpp te ñëwoo fi mel ni ku koy rendre compte ci ni ma ko mën a waxee ndax fàttaliku nañ ministre de l'intérieur daaw fi jóg bu fi mosaan ñëw fii ñuy wax nekk ci yéen fa lañ koy dalal li ci ëpp ci mujj gi booba jiboka moo nekk ministre de l'intérieur du toog ñaari dimanche te ñetteel ba ñëwu fi gouverneur bu njaareem moo itam bu jëlalee week-end bi ñëw fi week-end ba ci topp dina fa ñëw dina fi ñëw préfet bii nekk ndakaaru du fi jóg da ngay gis ku mel ni commissaire Tall nekkoon commissaire u Mbàkke day mel ni toujours ci kër gi la la dëkk ba bi mu fi jógee bi muy dem ki ko fi remplacé ñu koy wax du Fall da ko ñëw nuyoole ko ba ñun ñiy nekk ci bunt bi mu mu présenté ñu ko moom itam du fi jóg day mel ni sëñ bi lañ am ci ku ñu war a rendre compte ci seen ab liggéey euh, diggante mag nii ma waxe woon ci njabootu sëñ Tuubaa gi li nga wax ne lu mel ni ay ngan ak yu mel noonu am na ku ma dégg barki dem mu wax ni ngan ak sëñ Abdou Khadir doon na li nga xamante ni bii moom mooy li mu gën a fonk waaye ci waa kër sëñ Tuubaa ñi ñun ci mujj gi suñu jamono dafay mel ni sëñ Abdou Khadre moo fi amoon ngan goo xamante ni bii da koy def daanaka ab diggante boo xam ne bu ñëwee dafay fanaan yendu fi wala mu yendu fi ba ngoon jot mu dem waaye diggante boobu teewul am na ñëw goo xamante ni bii diggante takkusaan la fi doon ñëw gannaaw bu ñu jullee takkusaan ba pare daanaka du mat fanweeri minute waaye li muy gàtt gàtt fi ngay xamee ni sëñ bu Khadre war na fee ñëw bay Bara Ndiaye day ñëw ñu indi boisson fekk oto bi dem nañu defar monsieur indi ko jaarale ko ci bunt gannaaw bi yóbbu ko ci néeg sëñ mu saa Bassirou sëñ bi bu bu buy julli takkusaan néeg sëñ Modou Badar bi gën a jige bunt bi féetee kër alaaj Baara fa lay toog ñu ubbi ñaari bunt yëpp mu jullee fa takkusaan tàmbalee teeru sëñ Abdou Khadre ki koy xaar ca bunt ba bu ubbee bunt bi jàkkaarloog néeg bi sëñ bi nekk. bu ubbeekoo sëñ bay jóg gàttanu ko bu nuyonteeg moom day jàpp ci loxoom ñu ànd dem ba famille dal mu dellusiwaat toog ñu dugal tiraange yi minute yu néew ñaar ñi sa Abdou Khadre àndal ñooy dellu si yëglu wane ni day tabaarkàlla manees naa egsi sëñ bi jóg wéet moom ak sëñ Abdou Khadre diir bu néew ñu àndaat mu gunge ko ba ci oto ba mu dellu si loolu bokk na ci euh, xeeti ngan yooyu mu doon def waaye mel na ni itam benn relation la boo xamante ni bii moom ak ñi mbokkal sëñ Touba waaye rawatina sëñ Abdou Khadre daawuñu ñu te buy ñëw day mel ni lu ñuy ganale waaye la nga cey gisee mooy am na waxtu nekk lu ñuy war a jokkalante ci seen diggante ak sëñ bi ak diggante ak taalibe yi mel na ni li ngay gisee daal mooy information bi nga xam ne war na koy jox sëñ Abdou Khadre wala li mu ci war a waxanteek moom am na ci loolu kenn doyu ci loolu seetu nañ ko ci waaw sëñ bi dey euh, dafa am ci mujj gi dañuy war a dem Touba Belel mu wax sëñ am Amsatu mu maam Cerno ñu naan ko sëñ am Amsa du Lungeel dama bëggoon nga seetal ma ci taalifkat yi koo xam ne dina mën a dolli taaliba yi seen xam ci sëriñ Touba sëñ Amsa dem indi ñaari bande magnétophone yu Seex Sàmba Jaara Mbay yooyu muy waxe naan ki ma gisee la mat a xam waaye biñ demee ab diir ndax ku xam jamono la ku jaxasoote woon la ak mboolem ku jaxasoo ak sëñ bi xam na la xam na say qualité mu dogo jublu ci sëñ bay jaxate fekk Abdoulahat Touré ñëw fi mel ni dañ ko fee yónni woon fekk ko ci néeg sëñ Modou Badar ba ca Touba Belal mu ne ko yow de sa baay mënoon naa jàng ndax mën ngaa jàng mu ne ko dinaay jàng mu ne ko jàngal ma ma dégg bi mu jàngee mu dégg baatam daa ne ko dama lay téye ci yónneen booba ngéntal magam la woon mu ne ko dinaa am ku ma fa yebal di ko jàngaloo xasida waaye mel na ni booba lam doon defloo sëñ am sa moom lay waajal ci loolu biñ demee ab diir mu yabal sëñ Seex Colle moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Fàllu ak Moustapha la Baye Moustapha mi nga xam ne moo doonoon suñu jëwriñ ni leen nañ ko demal ca sëñ Abdou Dieng Balla Faali abal ko fa lu mu fa am ci wolofal yi sëñ Bay Jaxate ñu enregistré ko def ko ci bànd woy yi sëñ Bay Jaxate yooyee demoon na ci ñaar fukki bànd ak ñett wala ak ñeent lam ci wax mu ne dama bëgg taalibe yi xam Euh, dollee ko ak xam ci Serigne Touba te booy déglu woy yooyu dafay mel ni jamono jii moo ko tax a jóg ndax dafay mel ni dafay recadrer ndaw ñi ci nan lañ war a jàppee Serigne Touba ak seeni dundin ci àdduna ak nan lañu war a wutee lu lew ngir seen der mën na ñëw bari na ci woyam yooyu loo xamante ni bii euh, ci wet googu la euh, beneen bi ci des mooy daf koy wax ñeneen waaye ginnaaw kaset yaa ngi fi ci kuy digg da cee war a gis boppam lu mel ni comme li nga wax fi jamono toll te du fi jóg dafay da ngay seetaa déglu benn discours boo xam ne ku mu fi fekkul itam dégg nga ko mooy bi fi président Senghor di jóge te président Abdou Diouf war ko wuut dafa séddale waxtaan wi mu waxoon daa di wax ak moom sant ko ci lim fi def xamal ko ne que euh, bi mu fi ñëwee ba léegi. lépp luy suñu ittee bu ñu la ko waxee la nga ca man def ko sant ko gërëm ko gërëm ko wax ko li mu war a def itam ndax gërëmaat nit ñi nga xam ne ni faloon nañ ko te waruñu ko wax ko conséquences yi doon am buñ ko waroon ni ko buñ la euh, waroon sa liggéey du àgg daal di wax jullit ñi taxawaay bi ñu war a taxawee boole seen bopp néew say ba fu ñu ko nee cirib bu fa bunt war a ubbeeku ubbeeku fi waxaat nag li nga xamante ni bii. kii wuutu président Senghor la ko wax wante kenn ku nekk nag war a jàngat ci lu mel noonu ndax dafa wax ni euh, moom dafa wax ci jëmmi boppam loo xam ne message la bu mu yóbbante kooku ni ko man day feek ma fii nekk li fi sëñ Tuubaa nekkee woon rek laa fi fas yéene nekk mooy di yërëm jullit ñi tey ñaan euh, di dimbali jullit ñi tey ñaan yàlla yërëm leen daal di wax ni yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadin irham jamial wara am irham jamial wara yaa haadiyan radaa daal di wax ne bu ma amul sañ-sañ bu toll ni saña ñaan suñ borom mu yërëm mboolem bindee fi comme ni ko sëñ Tuubaa waxe ci bayit woowu itam dinaa am fulla ju toll ni ku leen di yërëm may wax ak yow di def ak yow ku defut noona nag du ma jotee yow dara li fekk maa ngi dund loolu kon wax na ni kii remplacer Senghor fii laa nekk bu defee lii muy wax ak moom di def ak moom bu ko defut du joteeg moom dara wax ci ndaw ñi kenn ci waa kër gi ñuy waxtaan ci àdduna mu ne ko yéen ndaw ñi day lépp lu leen dalagul da ngeen koy def njiglaay kon dafay mel ni ndaw dafa bari lu nekk ci kanamam waaye du moytu tant que amu ci problème rek defe ni lii lu valable la lu muy war a def waaye nag ci loolu ma wax ni la doon na ko wax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 muy nii di xew ñu naan kilifa yi war nañoo wax mu am kok dani ko man day nit ñaa ngi naan sëñ bi war naa wax ci ndàngam waaye ba suñ borom bindee jamono ba léegi musta yabalandoo ñaari xut bu samaan ci jenn jamono ñuy dogalandoo ci yonent yàlla Moussa rek la amoon ak sëy Seydina Haaruna te yonent yàlla Moussa moo ko ñaanoon suñ bopp suñ borom am laneen lu mu ca teg kon dafay mel ni kon ndaw dafay war a déglu kilifaam tey seet li muy déglu li muy dugg moytu ay risques ndax mooy loolu mu wax ni gone yi lu leen dalagul dañ ko def njiglaay moytu la leen di dal bañ leen a wan aw yoon. waaye ñoo ngi leen di delloo sant ak di gërëm comme ni ñu leen waxee rek ñun gone lañ woon goo xam ne doxe ay yónneen moom moo moo ëppoon ci li ñuy def euh, moo tax am na lu bëree bëri mën nañ koy dégg waaye suñu yoon du ci woon nekk waaye na itam euh, kenn mënut a wax ci fi jamono ji toll ni la ndax xam nga dara ci sëñ bi. laaj laaj boo xam ne déggoon nañ donte wax kook yow wala mu waxoon ko ñëpp déggoon ko itam ñu dem ba war koo beesalaat ñoo koy gàntu lii rek la euh, ñu nit ñoo leen di sant di leen gërëm.